Pastef suñuy dajé dañ koy def toujours ci organisation ak méthode ak beaucoup de discipline te gëm ni Dakar ne fera pas exception kon ñaari ma ñaan rek moy benn ñi ci karam ñepp tok ba mëna permettre ñepp ñu am visi visi ñu am visibilité ci ñun ñi di waxtaan ñaarel bi ñu and ak deglu ndax anami nañu animation bu bari bala kaddu gu di ñew te buñ ko paré di ngeen reprendre animation bi inshallah ñu fas teunk suñu waxtaan ci ñett fan bi ci ñëk moy li nga ne lañuy def fep may ñaan yeen ñi ne ci kanam gis ngeen ñi ne ci tribune ni ñu discipliné ñele ci tribune ñaari tribune ak ñi ne ci gannaaw kon lool lay ñaan ñi ne ci kanam parce que yeen yéen a gën a man su ngeen mën na ma perturber kon mané waxtaan bi na ko teunk ci ñetti ñaareel bi mooy dinañu waxtaane tuuti ci wàllu politique ci offre programmatique yoo xam ne mu nga jóge feneen te ñu jàpp ni baaxul mooy li ci des su may wax pôle Ndakaaru nag daf may permettre ma dem démarrer ko ci li nga xam ne moom la ñu ubbee développement territorial déséquilibré mooy réew il faut ñu xam ni ñi ne ci réew mi yépp Nous tous les qui sans distinction de région ki fait le Saraya wala Salemata? Moi, moi concentré 46 de la richesse nationale Dakar Moi, mi représente moins de 0,05 du territoire national Moi concentré 46 de la richesse nationale boo jëlee li nga centre pays bi te regroupé régions depuis Saint-Louis Louga Djourbel, Kaula, Kafrine, Fatik, etc. Nous avons ngay depuis le nord jusqu'en bas du sud ba Ziguinchor 11 Kolda 11 régions nous avons ñëpp elles représentent 44,5% de la richesse nationale les 11 régions représentent représentent minimum minimum 80 du territoire national l'est du pays nga y que ñaari région la Kédougou ak Tambacounda ñoom ñu de la richesse nationale kon c'est un déséquilibre criard entre les différentes

tout un quartier wala toute une commune ndax Baobab boo fa demee ci élection présidentielle bi nous fa gagné kon Baobab ñoo fa ëppale Kenen, ku ñun le problème c'est pas Baobab c'est pas Dakar le problème c'est un individu bu am ay problème bo xamné à la base de jóge ndax kenn ku ne nañ la yaree sa kër bo génné ci biti non ngay comporté kon du problème mu Baobab du problème Dakar. Dakar, l'élection élection bi passé nous fi gagné largement L'élection élection bi ñu ce sera plus profond encore inshallah. nous kon kuy woté borom Dakar te mëno gagné dara ci ndakaaru moy mag buy nax bopam et nous tomber tombés dans ce piège mais déséquilibre bobu am entre les différentes zones du Sénégal nous avons lu a commencer par man on s'est retrouvé à Dakar alors que nous avons le minimum nous. peut-être nous sommes ñu des fi diggante Guédiaway, Pikine Kermassar, Dakar ils ne seraient pas là ils seraient chez eux il faut rectifier et corriger ce déséquilibre territorial dans la vision 2050 nous nous développer nous bëgg développer, l'équilibre sera 46 pour cent am Dakar dañ koy wàññi ba mu 29 pour cent pôle centre Bob ma tuddoon nga 44 là, cent la war nañ ko ba 51 pour cent waaye ci pôle est bi moom a à 20 Li boko lii boo ko defee suñu nee nag dañuy wàññi Dakar dañu bëgg nit ñi comprendre koom-koomu Sénégal de manière générale day yokku de manière substantielle dañ koy yok mais ñu redistribuer ko ba euh, yenen pôles yi yenen région yi jot ci sen wall lool moy permettre ñen ñi nga xamné tay ñi ngi ci Dakar et dans des conditions difficiles juro minute loué ben chambre xey nek ci mbedd mi di jaayant pour am luñu yobbu ñoñu su dé yaangi ngi won wala Ziguinchor wala nga Kaolack wala nga jóge fu Budé def nañ ni ñu war a def fofu am fa sen sutura loolu moy permettre Dakar noyi Dakar aéré Voilà, nga naan ma ngi sonal sam bopp di def de nouveaux pôles urbains de à l'intérieur de Cap-Vert nga créer les conditions non seulement de l'exode rural mais que les populations repartent vers leur ruralité mën am li ñuy am ci mbay mais le pôle de Dakar boko ko mom li tax ñu def ko pôle mom dongo en termes de superficie son on a pôle Dakar mais donc une progression substantielle le pôle de Dakar le PIB par habitant actuellement ci Sénégal parce que c'est un million francs par habitant parce que yeneen pôles yi ay francs nga francs il n'y a que le pôle Est, Mouikédougou ak Tamba, 1 million rond, mais 1 1 million sur le papier parce que or bi am ba tax ñu egg Sénégal théoriquement c'est 1 million mais population kunda, population Kédougou boo leen 7 nous ñoo au Sénégal ndax gisuñu nous bi nga xam marbre bi mi ngi exploiter ak à l'horizon 2050 pôle bi dafa atteindre 10 millions par habitant en termes de PIB rapporté à l'habitant ñu lan taux d'emploi bi ñi en âge de travail wara pôle actuellement à 29 c'est le taux le plus élevé au Sénégal mais à l'horizon c'est encore très faible Maintenant, à l'horizon 2050 on veut l'amener à 40 Mais là, mais a naka lañ koy fait lan les grands projets 2050 du pôle Je commence par li nga la culture nous avons, l'année dañuy lan place culture qui projet Senghor moo wax la culture est au début et à la fin du développement wax na culture dafa am solo en dehors des aspects identitaires fo dem lañuy ragné les peuples entre eux moy naka lañuy solo naka lañuy ñuy lan moy sen art culinaire tay nee nañu ceebu def nañ ko patrimoine universel mais ñu identifier ko au Sénégal naka lañuy ñuy naka lañuy teggé lolu moy le premier identifiant d'un peuple té ci bir peuple bo gis day am ay spécificité ndax nañuy feccee en Casamance bokol ak niñuy ñuy fouta. bo démé fouta, riti lañ fay def bo démé Casamance bëgërëb lañ fay def donc culture dafa am solo ci peuple ba tax ñun dañoo fonk culture biñu ñu toogee dégg ngeen ya une vingtaine de jours wala un mois li nga xamné moy la copie privée artiste ya ko joy ta amuñu ko y'a à peu près vingt cinq jours jàllale lañu en conseil des ministres le décret bi nga xamné depuis des années ou des décennies artiste ya ngi dan daw ci gannaaw lolu dégg ngeen ñu né Pastef fay na les droits d'auteur li muy utiliser ci campagne bi ci ay sons ñun rek pour le moment la déggum ci ay coalition wala ay parti yu ko fay kon ñun culture xam nañu lan moy valeur am te bëgg nañu nitu culture di autre culture motax ci pôle Ndakaaru damay commencer par le up culturel Dakar est déjà une attraction culturelle dañu bëgg mu donne un grand up culturel ba commencer ko ci lañu bëgg ci Dakar moy mu donne la capitale culturelle de l'Afrique Tay, depuis quelques jours lancé nañu biennale bi biennale bi biennale des arts des lettres etc. mais nous bëgg biennale bi une dimension dix fois plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui Nous donne une source de rayonnement de notre pays à travers le monde entier mais nous bëgg aussi un écosystème dynamique si amener ne luy industrie culturelle à travers toute l'Afrique nous avons une centralisation ici au Sénégal où à défaut nous donnons un des foyers forts de la culture Nous avons koy cinémas, cinéma la production de séries Nous savons que sénégalais yi une capacité de production de séries ba avons séries nous ñu transcrire en anglais en français chaîne internationale sax diko ko mi ngi jaar aussi ci les arts visuels di jaar aussi ci lepp lo xam ne dafa jëm ci production musicale lolu moy premier élément bi nga xam ne bëgg nañu Dakar niko ko Senghor bëggee woon ba tax mu organiser won le festival des arts nègres Non lañu ñu bëggee art ak culture ak léeg lu jëm ci nonu ba Sénégal don ci ben royukaay ci Afrique mu wara yomb nak parce que Sénégal gis nga art y une stabilité paix train Faut ay balang sont en train de se faire, Ils sont en train dinañ tal faire. Ils sont peinture wa ak mais Sénégal a une stabilité démocratique Nous, on parvient à faire des alternances par les urnes Quel musul le coup d'état au Sénégal kon tay li ñeneen ñak te ñu ñaanal leen ñu am ko ndax ñun panafricain la ñu jàmm la ñu bëgg ci continent bi mais en attendant lol di am nous avons utilisé li nga xam ne atu la pour capter tout ça ñaaral bi moy on veut que Dakar soit un hub du savoir de la science de la technologie de la production scientifique lolou tay am nañu un petit avantage yene a ngi gis ni ay xale dinañ jóge Congo jóge ba Cameroun euh yenen réew yi di ñew jang ci fi Sénégal parce que am nañu ay institut de formation yo xamné qualité bi mu am pour le moment eggagul qualité bi ñu bëgg comme les pays développés mais rawna lu bëri ci pays yi nga xamné rawati n'a ñi nga xamné ño bokk langue bi ñuy gëna utiliser muy la langue française ñu bëgg donc ce hub du savoir par la promotion d'écoles de renommée nous gën koo travailler bëgg nañu mu un hub des métiers du savoir également par le conseil et l'ingénierie Sénégal am nañu ay borom xam-xam réew yu bari buñu bëggé def ay consultation ay Sénégal lañu jël ci suñu cabinet d'expertise expertise comptable expertise financière expertise fiscale lepp amna fi amuñu dara lo xamné ne war nañ ko nawé yeneen réew yi ñu bari étude yi ñu bëgg def ñëw jël les compétences sénégalaises nak war ñu nelaw ba avantage bobu ñu perte ko. pour cela il faut que tous ces métiers de conseil d'ingénierie d'ingénierie les métiers judiciaires les métiers de la finance de la comptabilité les métiers qui tournent autour des hydrocarbures. Nous avons du tey pétrole avons gaz ak le plus jëm ci mini on doit produire des spécialistes dans tous ces métiers les meilleurs experts de l'Afrique mu jëriñ d'abord suñu exporter comme savoir-faire parce que le savoir immatériel moy xam-xam nous sommes dans cette économie là y a ngi qui ñu nan l'économie du numérique tay bo jëlee li ñuy tuddee les majors les majors en matière d'hydrocarbures da ngeen dégg ñu né BP da ngeen dégg ñu né Total da ngeen dégg ñu né Shell ainsi de suite gis ngeen ñooñu ñëpp bo leen dajalé dajalé sen chiffre d'affaires mennum Google mo leen ëpp su chiffre d'affaires xam-xamu ëlëk moy xam-xam bi nga xam wala économie ëllëg mooy économie bi nga xam ne ci xam-xam lay jóge ci xel lay màcc soo déggee ñu ne les GAFAM Google Facebook Amazon et cetera yooyu yëpp c'est le savoir immatériel du ñëw jël ay pelle di gas donte loolu am na njëriñ ci réew mi du pétrole du mine waaye loolu yëpp ci xel la jóge ay bouton ngay toog di ko cliquer mu jur tout suite ay milliards